siare wa ngeñen TV ñëpp waral waaye ndogu nak xeyna na ni ñu koy waxe rek ndogu mom danaka wéru koor rek ko waral ndax su dut weeru koor manam ñam bo mëna a togg tamit dépasse rek lañ koy tuddé wala rër wala ndik kon daanaka suñ nee ndog wéru koor moom moko waral li nak ñuy def ko ak mbokku talibé yépp suñ jëwriñ yi nekk ci biir ñom dudu ñom Baye malik gaayep rek nekk ci café gi diko jox jaamu yalla yi kon manam li rek lañ fi am ñun ay Baye Fall lañ Cheikh Ibra lañ yaakaar wa kon manam li ñu war moy joxe ndogu wa moom mo waral ñu diko ko def muy ndigal lo xam nak mu ngi bàyyi kaw si suñ kilifa sëñ sayyidina alin Fall manam di suñ wasila di suñ buntu ci yoon bi kon lépp lu ñu ciy def rek ndigalam la loo xam ne si moom la bàyyi ko ñëw ci ñun kon daal maanaam li ko waral daal ñun ñëpp xamandoo nañ ko mooy weeru koor waaw moom moo ko waral ñu koy joxe di ko togg di ko jox jaamu yàlla yi di ko bokk ak ñëpp di ci woo ñëpp nag di ci woo ñëpp di wane ne maanaam lii nii togg ñam comme niñ ko waxee rek dafa nekk loo xam ne dafa am solo ndax hadis bu wër la ci yonent bi mu ne maanaam képp koo xam ne woor na ba ngoon jot nga jox ko maanaam benn tàndarma mu doge lol non rek manam manam mom koor gam koor yow am nga yol bu toll ni moom koor gog nga xamne mom wor nako ko ba nopi te mom du yak dara ci woram manam maanaam yalla suñ borom mën na lu upp lol non ndax mom moy kamil donc nak kon li nga xamne mom moñu fi dajale rek manam digal moñu fi baye muy digal lo xamne manam ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul mom moko yeesalon ci suñu yakar jamaan Sidi Ibrahima Babul muridullah kon nak si tànk non lañ nek di ci dox ba legui ni maanaam mooy li nga xam ne moom moo ñu fi dajale kon nag li ñuy def rek mooy dañ ciy soññ mbokku taalibe yëpp di leen xamal ne maanaam lii lañ fi am ndax ay ndaw lañ soo xoolee jotaay bi ni mu demee nga xam ne ay tuut tànk kese ñoom ñoo fi daje waaye nag yonent bi da doon ne maanaam ñeewut maanaam jotaay boo xam ne dafaa dem fekk fa ay kilifay kese te fekk fa ay tuut tànk ndax maanaam soo demee si jotaay jotaayu islam fekk fa ay kilifay kese te ay tànk nekkuñ fa kilifa yooyu noonu duñ fi sax te suñ fi jógee donc kon dinañ manqué ñoo xam ne ñoom ñooy nekk seen ginnaaw laat leen seen liggéey boobu noonu kon nag soo ñëwee si jotaayu lislaam si jotaay diine fekk tout tànk maanaam sa xel dafa war a dal bu baax ndax tout tànk yooyu noonu ñoom ñooy nekk fii ëllëg ñoom ñoo yor liggéey bi ñoom ñoo koy yeggale kon nag xam naa kàddu yi du sori ndax daanaka nekk na loo xam ne bett nañu donc kon munuñ koo bañ ndax niñ ko waxee rek waaye daal dañuy wàcc foofu kàddu yi jàlloo tamit di la ñaanal li nga bëgg yow yaa ko xam yàlla na ko yàlla borom def lepp lo yóotu lo xamni lu gën ci yow la ak manam ñi fi daje ñep képp ku fi àndaale aajo mo xam manam goor la wala jigen muy tout tank muy mag yàlla nako ko suñ borom safara ci anam yi nga xamni non nga ko gëna bëgge bëggee mu yées waa maanaam boole ñu ñun ñep jéggal manam Cheikh Ibra dafa ne señ Cheikh manam señ Bamba da ko ne maanaam bésu ndogu bu nekk defal na la ko muy wéru koor bo xamni ni suñ borom da la koy nangul manam bés bu nekk kon mu melni ba ba ndogu ba ba l'islam soso ba légui lool ku ko musa am manam fam mu tankam fa lañ koy jema tek wa kon nak ñu ngi sante dal suñ xel dal na wa tamit gën nañu am mbégte bu baax baax xam naa suñ jëwriñ sow mu ñu ñew su fekkee dina ci mëna sanni ay kàddu mom tamit ñu yeesal ko waaw mu ñëw sanni ci ay kàddu rek bishri la ilaha illallahu habli muradiya kama ahwaahu بسر لا إله إلا الله هب لي مرادي كما أهواه بسر لا إله إلا الله على نبي المصطفى يا الله صل بلا إله إلا الله صلاة مغنٍ بسلام الله بشر لا إله إلا الله سما دخات سلتني في رمضان ما رمت منك كرمه بفيدان ناجيت ربي بشهر رمضان seri amaani wal mona wal fayadaan weeru koor weeru yërmande la alxuraan a ngi wàcc weeru koor xare badar weeru koor la woon mu jamalo moon yee la netale déggu rasool mamare la ilay la la isa mu jammalo monu ye maas ibnu jabal bam koy yabal reewi yamal mamare la ilay la la isa moonu yee tug rasool disam ga tay laa fi misaal mamare laa ilala laa bishiri laa ilaha ilala kufitu kula dararin yalla بشر لا إله إلا الله هب لي مرادي كما أهوى بشر لا إله إلا الله هب لي مرادي كما أهوى بشر لا إله إلا الله ala nabil mustafa yallahu salli bi la ilaha illallahu salatu muhnin bi salamin lahu bishiri la ilaha illallahu samadu khatahu saltani fi ramadan ma rumtu منك كرمه بفيضان ناجيت ربي بشهر رمضان شهر الأمان والمنى والفيضان ويرو كور ويرو يرمندلا alxuraan a ngi wàcc ci weeru koor xare badar weeru koor la woon

la netale déggu rasool mamare la ilay la la isa mo jamalo mo nuye bam tagok ibnu jabal bam koy yabal rewi yamal mamare la ilay la la isa Seydina Mujammalo moo nu yee